poñ bi nga xam ne moo ci ëppoon solo ci dialogue national bi nga xam ne ubbi nañ ko fanweeri fan ak benn ci weeru mai fii ci ndakaaru ci diggante ñi nga xam ne ñooy nguur gi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo bokk ci kujje gi waaye tamit samblaaj bi samp mooy ñi nga xam ne kat yoon da leen daana ndax ñooñee daañu mën a amaat seen droit civique waaye tamit ndax daañu bokkaat ci élection yi nga xam ne moo ñeel tabu njiitu réew mi commission politique bi a nekk ginnaaw ban ci waxtaanee jubóo ci kaddu maanaam coppite am ci article l bi ba daal ñoo leen di diir di Karim Wade ak Khalifa Sall ñooñee daañu bokkaat ñi nga xam nag ñooy ay membre commission politique bi ñoom war nañoo kontaan lool ci ah, fan nga xam ne liggéey nañ ko maanaam juróomi ñaari séance yu nga xam ne amal nañ ko ci seen biir naam sax amal ci ay poñ yoo xam ne d'accorduñ ca waaye li a fës mooy L28 ak bi nga xam ne mooy a bu Karim Wade les mën a jàpp daal mooy désignation ki nga xam ne mooy njuutu opposition maanaam ki nga moo jël ñaareel place bi ci élection tab ñu ci réew mi poñ ñi nga xam nag d'accorduñ ci ci diggante ku jég ak nguur gi li nga xam ne mooy interdiction ci euh, chef de l'État moom mu nekk njiitu réew ak chef de parti li nga xam ne mooy xalaat bi nga xam ne dañ koy daal di euh, jël ci euh, jëruñ dénk wàllum kaaraange réew mi mu organiser ay élection waaye tamit ñu daal di dakkal ñi nga xam ne daal lañ jàpp ne ay détenus politique la ak ñi nga xam ne tamit seen déchéance électorale juste bee ko wax waaye gis nañ ne commission politique bi moom prononcé wul ci ñaari mbir maanaam coppite am ci article L57 bi nga xam ne mooy code électoral bi interdire ab citoyen mu pare na ñaari candidat ci benn scrutin waaye tamit justice daal di dugal loxoom ci processus électoral bii loolee kat waxuñ ci ba tax na commission bi nga xam ne daal Moustapha Niass ba moo ko daal di coordonné ñoom daañu jëbal seen rapport ak bépp rapport bi nga xam ne moo tukkee ci benn commission ñu daal di koy jëbbal ki nga xam ne mooy njiitu réew mi mën koo def plénière ci salle des banquets ca palais la république